Yeah. salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu mbokku jullit yi mbokku taalibe yi yéen ñuy topp ci suñu seen télévision Nourou Darayni TV ni ñu leen ko waxee woon ci bëccëg rek mu mel ni ñu ngi nekkoon booba ca Rosso senegal waroon a jéggi e, ñëw Rosso Mauritanie daal di e, jéggi fleuve bi ñëw fi nga xamante ne moom moo di Nouakchott mu mel ni agsi nañu fii ci kër sëriñ Touba gi ci Nouakchott ci biir ñeenti waxtu di jotee yàlla dogal na ñu ngi fii nii ci biir kër gi euh, war a jàkkaarloo ki nga xamante ne nii moom moo di euh, Serigne Sidi Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada waaye ci biir loolu délégation bi xam ne ñoom ñoo jógee Dakar ñoo fii nii ñu recevoir leen ci biir kër Serigne bi jàkkaarloo ak ki nga xamante ne moom moo di imaamu Sarsara kon su ko defee dañuy jox kàddu gi nga xam ne moom moo di Cheikh Mouhamadul Basir mu digtal ñu lenn ci li nga xamante ne moom moo di programme bis bi euh, ginnaaw bu ñu jógee ci loolu tamit dinañ jox ki nga xam ne moom moo di imaamu Sarsara mu tàbbal ci ay kàddu lu jiitu ñuy àgg ci Serigne serigne bi kon si Mouhamadul Basir bisimilah kàddu gaa ngi noonu. Uh, salaamaaleykum mbokki assalamu alaykum mbokki talibé Cheikhul Khadim ak fu man di nek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaanal Cheikh Mouhamadou muntakha mu yàgg teur di wax alhamdullilah rabbil alamin ni ñu ko waxe won ci suba bi ñuy toll Rosso tey ku ne xam ni fan ci wéru koori di xami ci sawal di bés bu mandargawu ci al wirdu khuz ñu ko daan def nak ci musée national diko ko waajalee Sarsara. moom lañ taxawal tey fii ci kër sëñ Touba gi nekk Nouakchott ci cinquième ñu ngi ñu nag soog a agsi ci kër gi war a dugg ziar sëñ Sidi nuyu ko xamal ko ni ko agsi nañu waaye ñu taxaw ak wëllëre woo xam ne kenn la ci réew mi di imaam Mokhtar mu ngi xam bu ñëwee Dakar ñun ak moom ñooy nekk eh, di ànd liggéey bi yëpp wax dëgg yàlla bi ñu ko fekkee suñu xol sedd na te ñoom it moom ak ay maamam ak ay mbokkam amoon na kóllëre gu sori alaaqa bu sori digganteem ak Cheikh Khadim dañ koy jox rek mu nuyoo tënk jotaay bi imaam bi ay loxo tasha takallam loxo fi bismillah salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen yëpp di leen ndokkal ci ziyaara bi yal na ko yàlla nangu bu baax di ñaan yàlla sëriñ Muntaqa al xalifa al aam mu yàgg te wér ci jàmm ak salaam ba ñu ba mu julli ak ñun ci Sarsara loolu la ñu ñaan yàlla te ñu ngi fii kër Serigne euh, Sidi Mourtada Mbacké maa ngi leen di nuyu yéen yëpp ku nekk di fu nekk ci suntam ak turam wasalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bés bu màndarga wu muy xaami sosowal di jiital ci nuyu bi Serigne Cheikh Serigne Sidi Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadou Mourtada di suñu Serigne di suñu wëllëre di suñu conseil li tax ma boole ci conseil mooy bépp xalaat bu ñu am boo xam ne jàpp nañu dina jëmale liggéey bi kanam danañ ko ko wax bu matee jubbanti mu jubbanti ñu ñu doxee noonu di nuyu suñu mbokk naar yi nga xam ni léegi dama am ak ñoom kóllëre yu sori ndax bu ñu màggal see daañu ñëw dakaar ma dalal leen ku mel ni imam ànd ak moom ci activité yu bari fële ca Ndakaaru loolu sëriñ bi la mu naa gàttal nag ndax lu jëm ci sëñ Tuubaa moom dañ koy tënk 1963 Serigne Fallou bi muy ubbi jumaay Touba ñu di ko xaar moo war def xutba bu gudd daa wax wax di gàtt wax ja mooy day ñëw ak ni ngeen xam ne xutba ñëpp di ko déglu jàpp ñi dana làkk arab yu bari mu joxoñ baraag bi daal ni suñu waa ji ñëpp ko doon ut ñun rek ñoo ko am wasalaam bisimilah ñu julli dama wax ni

Serigne Bamba Diagne Nourou Darayni audiovisuel ak ñu bari ñu bàyyi ginnaaw ñoo xam ne maa ci gën ñëw ay at ñu doyloo ma tànn ma teg ma seen kanam muy indi xalaat ñuy validé suñu yéenee tànk Sarsara melul ni Panaal tànk Sarsara at ñu yëpp xamuñu ko duñu bàyyi loolu rek lañ ci am yàlla natt ñu ci ñu bokk ci liggéey bi kon yàlla yàlla nangu ni ñu ko bëggee ñu nuyu suñu wajur doonte teewu fii di soxna Issa fuñ toll di ko nuyu ci turu liggéey bi ndax suñu bàjjen la suñu wajur la bu ko defee nag mel na ni à partir deux heures dix guddi tey suba war nañu liggéey jëmale le 24 juin ndax ñu ne ba pare daaw diiru corona bi saasara amul waaye ñun bàyyiwuñu benn vide lépp lu ñu mën a exploité ci liggéeyal sarsara def nañ ko di xaar ndigal am mu mën a wóoyal lool bu ko defee nag yalla ñu yalla dimbali génnal ñu seytaane mbolo yi bi nitu sama wax ci ñaar lay mujj nak ko bayyi xel ci ñaar lay mujj muy gëj ñoo gis diw parce que ci yeneen activité wala nañ ñaara diw parce que fatuna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jàmm ci jangalam Cheikh Khadim mom lañ fay exposer le 13 tombe ak dimanche ci lañuy ci lañuy def exposition bi ci lañ koy ubbi le 23 ci lañ koy tëj le 24 ci la ñuy dem Sarsara dellu si ñaanalante kon noonu la programme bi tëddee ñun ñëpp ñu bàyyi ko xel xam ne liggéeyal Serigne Touba la duñ ci dara nii ko sëriñ Bassirou waxee rek nañu takku bis ni ki suba mel ni dañuy soog a tàmbali. nuyu mbooloo mi bu baax a baax di leen doole ziyaara di sant bu baax ci taxawaay bi di sant mboolem kilifa yi nga xam ne teew nañ fi ñu ngi bokkal Serigne Touba te lépp donc te doon liggéey boo xam ne kenn jiitu leen fi mi ngi sant ki nga xam ne son excellence moo fi qui fi représenter le président de la république Moustapha Ndou, di rafetlu taxawaayam bu baax a baax ñu ngi nuyu nga sant këri diine yi ñi leen fi représenté ñëpp xam ni kenn desul limee xalifa Cheikh Sidi Muxtaar Kunti yu defe naa ni lépp dugg nañ ci biir waa kër El Hadji Malick waa kër Cheikh Ibrahima Niass ak ñëpp nekk seen biir ak waa Maata Mulaana ci waa kër ci biir waa kër Cheikh Ibrahima Niass waa Maata Mulaana ak Achim Sëriñ Achmisiri mi nga xam ne moo nekk Matamou Lalla jabootam teew na délégation bu mag représenté na. léegi cant googu nag li sëriñ Abdoulaye war doon wax rek lay wax sëriñ Abdoulaye daana wax ni yéen ñi nga xam ne yéen ay taalibe yi bu gisee bi jafee ngeen nekk ci wut yi di rang du caagi ne da leen a oyofal de du caagi ne da leen a yëngu nit ñaan gu nangu dong mooy sama borom ne ngir fi nekk moo tax ki fi ñëw di fi ñëw bu ngeen fi nekkul bul fi kenn du kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax xam ne cant kooku mboolem daayira yi nga xam ne ñu ngi ci biir ñu ngi juddoo ci cant gi daayira yi nga xam ni ñoo toggaloo fédération am ñi nga xam ne yëpp dugg nee na ku ci nekkugul moo am waaye yëpp ci nekk di ngi leen di sant bu baax a baax na ci seen taxawaay di leen xamal ni yàlla mi nga xam ne moo dara tax di jëf mi ngi gis jëf yi bu baax nee naa ab dërëm ab dërëm tiitul ci dara it yéemul ci moom ndax moo nu bind dinu wërsëgal dinu dundal bu téye woon mbiram benn saa rek lépp daal di wow kon kon nag lépp kon cant gi moom la ñeel subhaanahu wa taala wax ni bu leen yem seen jëf de ndax saa boo yéeme sa yaa ngi mel ni ab gopp mu bay gépp dañ koo téye rek di ko doxloo lépp suñu borom la sëñ bi daa wax ni bépp ànd boo xam ne yàlla moo tax الحمد لله مجيب بيبقى أنا بوحم يلا تاخد إنا لله مجيب كنا ننسى تاني يلا بقى بمشي بولي تشيلي كيف سرنتوا ميغا خمنا نيانا نيانا نكيف تكيل جيل نيانا نكيف تكيل جيل سنو بوم jéggal la say bakkaar defal la ak njub defal la alal kon nag bu leen am benn sikki sàkk nit ci ne feek sëñ Tuubaa moo leen yëkkati bépp yiw dana dox ba tegu seen loxo kon nag ñun waaye ko suñu jaayante ak ñoom ñun yeesal suñu jaayante ak moom di ci yéene wala ñëpp la ci turu ki nga xam ni ci kàddoom la ñuy waxee muy Cheikh Mouhamadul Mountakha Bassir. nga xam ne moo fi toogal Serigne Touba. nga xam ne moo fi toogal Serigne Touba. di ko ñaanal mu yàgg fi. di ko yàgg fi lool te wér. ñëpp ma maase wax na fi yàgg te wér. ñëpp nañu maase wax ne yàlla na fi yàgg te wér. yàlla na fi yàgg te wér. jërë jëf jërë ngeen jëf. màggal googu. màggal gaa ngoogu. màggal gaa ngoog. sarsaara ngoog. amuñu lu moom. na leen wër ne. na leen wër ne. fu fi am murit nekk ci àdduna. yéeneem ah, nekk na ci Sarsara. yéeneem nekk na ci Sarsara. dañoo am tawféex rek. kon lépp tawféex rek. dañoo am tawféex rek. dañoo am tawféex rek. sunu borom féetale nu ko. sunu borom féetale nu ko. wala mu boole ñu ci. wala mu boole ñu ci. nañ ko sant yàlla bu baax nañ ko sant yàlla bu baax. feddali ci sunu loxo saay bu baax. ci sunu loxo saay bu baax. te xam ne. te xam ni. luñ ci def lépp luñ ci def. ñi ñëw sunu ginnaaw danañ ko sante lu ñëw sunu gannaaw danañ ko sante ëllëg te yàlla sunu borom te yàlla sunu borom ne day fekk mooy sant ba noppi day fekk mooy sant ba noppi jërë jëf jërë jëf jasakumulaay xayran sunu gan yi tedd yi sunu gan yi tedd yi fàttewuñ leen mukk fàttewuñ leen mukk mooy sëñ Bassirou Amar mi waaye sëñ Gana Messere sëñ Gana Messere ñoo nuyu baax di ko siyaar taxawaayam di rafetlu taxawaayam. nañ ko teewlu bu baax. nañ ko teewlu bu baax te déglu ko. nga xam ne njëriñ bëri na lool. nga xam ne njëriñ bëri na lool. ci jéegoom yi muy def. ak Abdoulaye Seck. sëñ Abdoulaye Seck. am njàngam am njàngam. ki nga xam ne ne. ki nga xam ne ni ay génération jëriñoo ay génération jëriñoo nañ ci. kon ak cant yàlla la kon ca ak cant yàlla la. yàlla booleeg moom. kon yàlla booleeg moom. ñu mën a fekkeewaat. liggéey boobu nga xam ne moom moom lañ waaj. mbir yaa ngoog kon mbir yaa ngoog. yoon waa ngoog yoon waa ngoog. yal nañu sëñ Tuubaa dimbali yal nañu sëñ Tuubaa dimbali. yal nañu sëñ Tuubaa may nu may nu wér. may nu ak jiitu. may nu kenn bañ ñoo jiitu ci kanam. jërë ngeen jëf. xaaj euh, moo ma yebal ma teewal ko fii teewal nag xaaj fii ci këru sëñ bi dafay lu jafe waaye nee na ma nang ma jot lil sëriñ siidi mu serigne multala sama nuyoo di ko ñaan mu jot li xalif general kullu murid sama di len dalal di dalal ci mauritani di len di wax ni bis bi suñu bis la ndax bisu bepp julit la nee mi ngi rafetlu taxaway gi di rafetlu guddigi gi di ubbiteef liggéeyu Sarsara mu ni mi ngi ñaan yàlla nag fu ngeen jublu ak lu ngeen ñaan yàlla na leen ko yàlla jox te liggéey bu ngeen def yàlla na leen ko tàmbali ci bisimilahi agale ko ci alhamdulilahi nee na it naa ko jotlil xaritam ambassadeur u bi ne fii nuyoom di ko wax ne Sénégal ak Mauritanie benn réew la nee na moom jabootam moom mi ngi denc doomu Cheikh Ibrahima Niass waaw am nay doom it yu denc doomu Cheikh Ibrahima mu ni kii benn famille la nee na dex gi mënu leen taqale tubaab yi mënu leen takkale nee réew mi Mauritanie ak Sénégal tubaab yi ñoo jël benn crayon rek xotti seen diggante waaye benn réew la loolu bu ñu gisee ne murit yi nekk fii Mauritanie tijaan yi nekk fële xaadir yi nekk fii suñu sëriñ ma nga fale seen sëriñ mi ngi fii nee na yooyu yëpp benn kër gi la moo tax mi ngi nuyu ambassadeur bi ni ko xam na ni it tànk yooyu looy dox ci Mauritanie muy tànk jàmm ak salaam wa salaam